Euh, co président comité scientifique bu grand cadre la ñu dalal tey gannaaw bu ma la delloo nuyu Mamadou Sané ñu daal di wax rek euh, ci débrayage bi nga xamante ni tàmbali ngeen ko mu nekk nag seen mouvement bu njëkk ci année scolaire bi ndax mën nga ñu wax rek euh, ci njëlbeen lu waral seen mouvement bi tey ji voilà tey moom suñu mouvement bi dañu ne mouvement d' avertissement la mooy débrayage bi à partir de 10 heures boobu avertissement kese la parce que am na lu ñu waxtaanoon ak nguur gi tënku ba pare te kenn ku nekk waroon na sàmm kadduwam. mooy protocole bi mooy protocole d'accord bi. Mhm. fàttali ma at bi sax encore ati. 2014 2014 2014. depuis depuis depuis tey depuis lors ba tey lu ñu gis daal doxum kakataar lañu gis nga boole ci nag à chaque fois bu ñu toogee bu ñu amee occasion ci médias yi di dénigrer enseignants yi di wax nit ñëpp nangam xaalis lañ ci dugal pour régler problème donc problème euh, enseignants yi réglé na alors ko loolu amul. léegi xam nga daaw bu ñu sumbee xeex bi dañu dem ba finalement ñu yaakaar ni école bi daal naroon na naroon na yàqu mu am ay waxtaan ba finalement ñu ñu ñu dàq bi bu ñu ñëwee ba école bi laata ubbi mooy mois de septembre ministre de l'éducation woo partenaires sociaux yi ak syndicats yëpp ba sali parce que dañu gis ni kóolute amatul entre jàngalekat yi ak nguur gi léegi waxtaan bu mu amee mu ne léegi weer bu ne dinañu woo ñu toog waxtaan ci euh, kii bi nu mu demee liggéey bi nu mu demee moom ci wàllam mais mu am tamit un comité suivi bu waroon a réunir continuer di évaluer mais ñun depuis lors tamit loolu moo tax ñu teg suñu gànnaay ñu ne nañu toog seetaan non yooyu yooyu laay ñëw noonu xam nga depuis lors dañu toog di di seetaan mais ñun wóolul nañu ni li ñu wax ne duñu duñu ko jëfandiku mais bugguñ bugguñu woon euh, bañ a sàmm suñu kaddu réunion yi day am mais final réunion yi daal dafa mel ni comme ay tour de tey ñu def ay waxtaan daal ñëw lii la ñu def lee la def boo xoolee concrètement loolu loolu amul. lu aju ci waxtaan yooyu wax nga ko daaw ba ren yéen a ngi sumb ay waxtaan. Mhm. ndax point yi da ci amul yu ñu satisfaire wala am na yoo xamante ne déjà satisfaire nañ ko. point yi yuñ ci bu dañ bu ñu satisfaire lii créé lële te lu ñu fi satisfaire la dara dara dara dara ñun ne sommes pas satisfaits du tout. am na loo xam dañ koy wax waaye duñ ko jëfee. dañ koy wax wala da wala mais duñ ko jëfee. te am na yu problème yu crucial parce que crucial parce que yow boo boo demee par exemple euh, gestion démocratique mais daan nañu gis ñu war a affecté enseignant ñu xool yeneen critères yu ñu koy affecté mais yow mouvement national nga dem déposer ba pare ñoom ñoom ñoo ne tel poste dafa amul fa amul fa jàngalekat ñu affecté la foofu nga jàngale def trois mois installé sa famille bu pare ñu jékki-jékki ne la non non non fii danga nga war a dem bërëb sangam ki koo xam ne yaa ngi ak sa famille say njaboot war a déplacé wu affectation subite yooyu lan moo nekk euh, parce que tout simplement dañu ne redéploiement am na feneen besoin ñoom bu ñuy balaa balaa affectation yi am balaa mouvement national di am war nañu xam ni fii poste vacant moo fa nekk wala fii dañ ko occuper donc ce qui veut dire que certainement dañu affecté ay nit fu ñu leen warta affecté ba bo mois de mois de février am na ay mouvement interne pourquoi enseignants yi di bouger à tout moment alors que dañu déclarer ni à telle période voilà poste yu vacant lii am na un surplus bu amee surplus dañ ko war a teel a déclarer déjà pré bi génne nañ ko mais boo xoolee pré pré bi am na ay postes yoo xam ne déclaré wuñu ko dañu toog jusqu'au dernier moment defaat benn mouvement interne jaxasooy loolu la loolu la. par rapport également poste yooyu sax moo tax ma lay interpeller ci mhm. euh, yenn euh, matières yi nga xamante ni euh, dafa manqué lool ay professeurs foofu également yéen lan moo ci seen xalaat. matières yi ñu nee nañu nañu recruter ay professeurs yu doy ci matières yooyu parce que boo xoolee professeur de philosophie les professeurs de philosophie pour la plupart boo xoolee du ñu ay professeurs de philosophie ñun li ñu leen wax koo jël mu jàngale par exemple pendant dix ans ci classe jàngale ay élèves terminale lu ñuy nekk bu ñu nekkul ay professeurs mais ay ay ay sociologue lañu amuñu diplôme professeur de philosophie am na ay instituteurs sax yu monté di jàngale ay classes yoo xam ne waruñu koon jàngale. mais loolu est-ce que indi gàllankoor ci njàng mi alors la mais cest à seen seen niveau académique mhm. la ñu jël ñu jàngale ñun lu ñu leen wax comme ñu ngi def benn métier boo xam ne arrangé na nguur gi yéen bu ngeen di évaluer ngeen ne seen liggéey baax na mais indi leen ngeen def leen formation boo xam ne dañu am diplôme yi ngay am mais mënoo yónni nit mu def liggéey nga ne jaajëf liggéey bi baax na mu ne la jox ma diplôme bu wone nii liggéey bi mën naa ko def nga ne déedéet da nga koy jaarale ci yeneen condition loolu nag problème la. lu waaw ci bon waaw mouvement débrayage bi d' abord dañu ne nañu respecter protocole d' boobu laa wax sànq mais ensuite gestion du principe euh, démocratique boobu boobu laa évoqué tout de suite maintenant la fin de toutes les lanteurs boo demoon ci ministères yi pendant les Pâques fête fête yu jël noonu mais da ngay gis enseignants yu bëri wala que ñu dem noppalu mais dañu ñëw di rang ci ministère yi. di def lan pour jëlee ay acte acte d' avancement yow boo xam ne yow boo avancé nguur gi moo war a indi kayit bi ne la avancé nga mais il faut nga jógee ay Kédougou il faut nga jógee Fongolimbi il faut nga jógee Casamance yàq sa vacances yëpp ñëw chaque jour di rang di xaar acte. te ñu waroon am ay ñu war a am et ce qui est bizarre. boo xoolee par exemple validation yi am na ñu déposé depuis des seen validation génnul. ñeneen ñu déposé ñu yàggul seen validation génn sa valide ñii seen validation yi teel a génn bu ñu ko déposé par exemple finance ñii ñu an aligné leen ñële duñ leen aligné par exemple boo jëlee tamit euh, ñii les les kii comment dirais-je ah, jàngalekat yi war a dem retraite normalement booy gérer nit da nga xam war a xam ne suba day dem retraite ñu nekk ci classe yi jusqu'au mois d'octobre ñoom dañ ni dañuy bénéficier ci benn prolongation mais dañu déposé seen seen demande de prolongation mu toog ba jour bu ñu war a dem dem euh, retraite jot ba mu passé de deux mois ñu nekk sans salaire pendant deux ou trois mois acte bi doog a génn pour que ñu yóbbu ko finance doog leen mun a fay ñu continuer les les retraités yoo xam ne effectivement dañu dem tamit c'est la même chose nguur gi day jël day yéex a yéex pour jox la kayit bu wone ni yow nekkatoo en fonction te kayit boobu mooy permetre nga jël sa pension de retraite mun nga toog six boo plus doo jot sa pension de retraite mais loolu lu mu mën a def jaaduwul jaaduwul léegi beneen beneen pe beneen kii bi mhm. rappel yi tamit dañu demander à ce que ñu fay intégralement les rappels dama dégg benn benn benn autorité di naan intégration bi dañ ko aligné di fay mais foofu kumba am ndey kumba amul ndey moo fa am am na ñoo xam ne seen validation génn na dañu dañ leen aligné fay leen rappel ñeneen yi seen validation génn aligné fayal ñoon rappel yow sa sa acte bu génnee tey ñu aligné la suba ginnaaw suba ñu fay la sa rappel man sama acte génn yi depuis daaw ñu aligné ma pare teg ko. lu ngeen jàpp ni du yoon. du yoon bu weesoo euh, débrayage bi euh, nan ngeen fas yéenee taxawee may may ma tuuti ma may ma yeggale foofu beneen point ah. bi. Uh-huh. mooy aussi parce que dañu ne. Uh-huh. aussi nu ñu enseignants yi ñuy génnee ci classe yi nga jàngale fukki at. Mm. ñu ne la kaay ñu defal la ay dictée ay question pour xam. sa niveau bala sa niveau bala ñëw la formation. mais ki nga jël muy liggéey sa sa kër nga gis ni xam-xamam bi doyul danga koy yóbbu mu dem formation. mais loo koy def ay dictée questions yi te nga yow déjà boo évaluer nga xam ne niveau bi baaxul moom nee na j'ai un besoin de formation yóbbu ko formation. bu ñëwaatee mu mu mun a mun a jàngale normalement. beneen point bi augmentation substantielle de toutes les indemnités. boobu on a été très clair pardon pardon may ma ah, dinaa ñëw foofu mais bu ñu demee ba leen di wax dicté ak question waaw est-ce que jàppoon ni niveau ba tamit xaw naa doy waar euh, tuuti na tuuti na ba euh, ñu dem sax ba xalaat ni il faut ñu defal leen dicté parce que tamit mag yu toll noonu ku naan leen ma defal la dicté question moom doyul waar kan moo leen recruter ah kan moo leen recruter xam nga lu ñu daan def dans les écoles mooy chaque année bu demee ba ay mois de mois d'avril dañu indi ñu nekk en formation indi leen dans les loolu mooy responsabilité entière occuper classe yi ñu am besoin de formation ñu retirer leen yóbbu leen formation actuellement nous avons presque deux mois de vacances deux mois yi mënuñu jël un mois former jàngalkat yi am lu besoin beneen poñ bi mooy bi ñu waxee ay affaire indemnité ñu ne jàngalkat yi dañu bëgg xaalis ñoom ñu ne dañu def étude ñu may leen ñu def étude ñu def benn cabinet indépendant mu def étude cabinet cabinet bu mu defee étude ba pare dafa wane ni jàngalekat yi ñoo ci gën a néew payor non c'est important waaw damay damay résumer ñoo ci gën a néew payor ba pare gis nañu ñoo xam ne ci même indemnité ñuy feyeeku deux fois mais appellation moo bokkul. bu weesoo débrayage bi fu ngeen jëm da ngeen nar a. bu weesoo de xam xam nga xam nga kuy dem xeex doo dee kii euh, cartouche laa yor wala bant laa yor bi bant bi la ñu génneegum. wala hmm. boo buggee doj bi la ñu génnee. mbaa da ngeen nar gën a metti ren. Euh, non il faut mu metti il faut ñu respecter ñoo la mu continuer di metti. ñu koy jaajëfal bu ah. baax. Mamadou te du ñu grève mi du grand cadre mooy grève. Mm-hmm. ñun lu ñu grève ni jàngalekat yi yëpp ils sont intéressés par ça. ñu koy jaajëfal Mamadou Sané président comité scientifique bu euh, Grand Cadre jaajëfal nañu la bu baax a baax ci wuy bi